jàmm Sénégal man la bay di bi def bu bees yaa ngi ci émission ndekki lii ak maam Nicolas jërëjëf vidéo vous 98.5 le choix de la différence et la première radio d'information du Sénégal bien le bonjour chez vous et bienvenue sur Sud dans Nekili, l'émission numéro 1 de Sud vous avez bien fait de faire le choix de la différence vous qui êtes à Dakar mais également à l'intérieur du Sénégal puisque vous le savez tous Dakar n'est pas le Sénégal vous qui êtes sur l'international et qui nous suivez via euh, nos réseaux le digital notamment euh, nous sommes en direct sur YouTube et Facebook Diamono Yile ñu ziar sénégalais de la diaspora ngeen ci aduna bi waaye yéen itam yéen ñi ñuy suivre ci réseaux sociaux yi euh, di ñu fa kar saa su ne ñu ngi leen bu baax a baax a équipe digitale bi ma àndal lii émission nandité yi tàmbaleeti fas yéene jëm midi à 11h et 8 minutes toujours un plaisir de vous servir à travers votre émission préférée ànd ceeg seen i soppe ku ci mel ni par exemple.

waaye ki ci des moom. waaw ki ci des mën naa nekk mën naa nekk comme <laughs> naa nekk sax Nicolas di. <laughs> bi la walaay. Ah, ah waaw man tudduma kenn. <laughs> Eh, tuddoo kenn. parce que coow loolu assemblée nationale ka dégg. sa lettre bind sànni. waaw ko dégg séeréer xaayaan ko loolu de loolu de xuloo xuloo xuloo ragal. la ñu ragal maa bind sama lettre sànni ku for yaa moom. ku for yaa moom. damaa dégg benn waay buy buy défendre affaire bi man assemblée nationale waaye kii tuddul kenn eh, mais yàlla sax leel mu wax loo xam ne li ci alxuraan faral di tudd kenn waaye da xam fi muy waxee. quand <laughs> kuy xaar kuy xaar tudd la kat doo xam loolu la wax da ngay àjji. waaw yaay ah, jëli maanaam maanaam dafa am loo xam lii. Ah. nit ki du toog ban na ko yow da xees wala da ñuul day xam boppam waaw ah, nit de ñuulee war naa mën a fi ma def ko nii da da bu ma ko defee nii ñuul kuk lay doon xam nga boobu mënee ruube moom lu ñu wax nga tekkee de. waaw xeetu ñuul yee bokkul mais ñaar yëpp a ñuul. waaw wax dëgg yàlla. <laughs> ñu xam nga kii euh, euh, ñuul dafa am. waaw métissé am. métissé waaw. waaw waaw loolu am na. bi la lay waaw fa tabaarakallaahu di leen ziara bu baax di nuyu ñëpp. <laughs> noonu rek nga nuyoo tey kese waaw tey. tey moom soriwuma tey dem ma fenn xaw man moom. Oustaz <laughs> ñu ngi lay ziar bu baax laata maa jox euh, dañuy doore ci li nga xam ne yéen journaliste yi moom ngeen fas yéene tàmbale ëllëg incha allah. Euh, jëm ci jàppale euh, Baye Alé Niang journaliste d'investigation bu mag boobee. presse sénégalaise dajaloo boo ci doon sànni ñaari kàddu puisque demain ak après demain am na ay plan d'action yu ngeen tëral. waaw waaw mooy alxames alxames suba. Euh, ak àjjuma ji ci tegu muy ñaari fan yi ñu dëgmal xam nga kenn ku nekk nag li nga am rek nga mën a xeexi euh, ki yore aw yatam di ko sàmm bu nekkee ci àll bi bu gisee lu mu xaw a ragal yat woowu rek lay mën a jëfandikoo ba ba muy am leneen su fekkee yàlla dogal na yat woo mu teg ca leneen itam mu teg ca leneen te ñun li ñu am moom mooy euh, presse bi la ñu am ak yëglekaay yeeg ya ca aju journée sans presse nag du dafay nekk loo xam ne lu taarixale sax d'ailleurs ci wàllu journalisme bari na réew yu ko def mais ñun bi ñuy yi ñu yitteel fii ci Sénégal en tout cas action gouvernement bi lépp lu mu def ñun suñu yoon newu ci waxuñu ne presse bi du génn de ñoom nañ génnee nañu wax mais ñun lu man su ma doon def fii journal tey lu laal gouvernement bi du ma ko tudd waaw man du ko tudd duma ci wax beneen journal tamit lu mu bind ci gouvernement bi moo xam kuy def revue de presse nga tudd ko mais waa CAP ñoom duñ ko laal duñ ko tudd Okay. c'est l'action du gouvernement hmm. les 48 heures qui suivent la wax na ñun suñu yoon nekku ci loolu lañ mais nak beaucoup nak journée sans presse bo xamni bi dañu 100 bo loolu mom bu kérogué hmm. da nga dul gis sax journal faf ben journal de génn radio bi même buñ ko talet ay xalankañ nga fi dégg waaye do dégg ben information loolu mën naa ne looloot beneen ngànnaay la wax ni ne fa ah, waye ci mu mu ñëk mi mom moy fi ngeen tàmbalee fi ñu tambalé dal moy tout ce qui lepp lu touché gouvernement bi à partir de demain baye bo ñu dajé conseil des ñoo xam seen communiqué kenn ko fi lire déggal loolu. Euh, fi ngeen fi ngeen ko defee tamit de compliqué ci gouvernement bi ndax suba itam motion de censure pour daaneel boobee gouvernement dañ koy introduire assemblée daañu ci ñëw. léegi non non non xam nga gouvernement bi moomul assemblée. assemblée bi ah. dafa am ñaar yu ci nekk. waaw ko doon tënk. Ah, waaw waaw waaw ba tey dafa dinañ ci ñëw léegi moom lañu moom lañu fas moom lañu fas yéene waxtaane damay bàyyi Mbacke mu ngi nuyu am na solo ñu ngi lay fay nuyoo euh, Nicolas di nuyu saa njàmbur ak ñi ñuy déglu ñëpp euh, xam naa li mu ubbee rek euh, xam nga kenn ku nekk nag euh, doo xeeb sa doole ci la ngay xeexe mm-hmm. maanaam ku jaaxle moom ni nga man doog ngay def mm-hmm. tey itam journaliste yi yëglu nañ ay yoon mm-hmm. bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee dox ñaxtu def nañ ko di barki démb ci assemblée ba rek bi Amadou Ba ñëwee ba toog li ñu njëkk def mooy ñoom ñëpp yëgloo yëgloo yëglu ba ñu yëg ne voilà ba ñu yëg ñu ngi fi léegi nag euh, day nit day toll foo xam ne da koy wuyu hmm. man xam naa jot na ci état mu wuyu euh, woote boobu nga xamante ne journaliste yi ñu ngi koy woo di ko sàkkul ndimbal seen mbokk moom nga xam ne moom lañ jàpp hmm. wuyu gi nag mën naa doon façon yu bari xëy na mën naa doon wuyu bàyyi ko ndax loolu mooy li ñëpp bëgg hmm. euh, jàpp naa ne sénégalais yi moom ñu ci ëpp bëgg nañu ñu yeewi Pape Alé ndax yu baree bari waaye nag wuyu gi itam mën naa doon doon yëg maanaam wane ne li ngeen di yëglu yëg nañ ko mhm. waaye au moins ñu xam ne sax euh, yëf yi nii la demee mhm. euh, loolu sax mën naa doon loo xamante ne mën naa indiwaat beneen débat ci penc mi boo xam ne gën naa gën naa gën naa mhm. maa ngi ciy ànd ak ñoom bu baax baax euh, di leen jox sama solidarité te yaakaar naa képp koo xamante ne yaa ngi déglu rajo yi wala ak télé yi wala ngay topp li nga xamante ne mooy actualité bi am nga ci wàll ndax itam ñoom amel nañ leen jukkal askan wi amee nañ leen jukkal te te kenn du xeeb dara nag ndax fi ne boo jàppee ne buñ boycotté du tee télé li doon dox di dox mm. loolu ku xam dëgg-dëgg du jàpp loolu ndax benn rajo wala benn tele mm. bu ne rek boycotté naa benn benn benn activité rek mm. doy na sëkk ñu ñu dem maanaam dabu ji ko rawatina bu ak kuréelug lëmm nag àndee ne lii dañ koy boycotté ñu ne lu tax ñu ne diw miñ teg loxo lañ bëgg ñu wax ci ay mbiram loolu jaadu na ñu ñu jox leen nopp jox leen am na solo jërëjëf kon Serigne Mbacké Sylla ak oustaz Maodo fay ci introduction boobu jëm ci euh, journée de demain bi nga xam ne ci la presse sénégalaise jëm di boycotté ay activité euh, gouvernement bu Sénégal Sénégal plan d'action yu euh, jëm ci libération ou Pape n'est-ce pas bu bu buñ ci taxawul rek dinañ plan d'action yi gën ko euh, bu ko bi tar journaliste yi ñu ngi leen ci di 11 h 13 minutes Pape Laye nga bal ma rek euh, Pape def mu ngi photo docteur voilà pour ñu euh, dougal ko bu fekkee ne mu ngi mu ngi en direct parce que def naa moom la ñu war a docteur Abdourahmane Diouf moy président fondateur du parti Awalé bokk na ci parti yi mujjee juddu waane boobu ba légui mu ngi wane bopam te docteur Abdourahmane Diouf ci bopam ragné nañ ko lool ci walu politique ci kangam gi mu doon euh, docteur ñu ngi lay nuyu waaw asalaamaaleykum Nicolas ma ngi lay nuyu di la fay ci kontaan waat ci émission bi Euh, di ñu Mbacke mi nga xam ne tam mu ngi toog sa wet. jërëjëf. bon keneen ki nag fayeen bi xaw ma dama koy nuyu wala déet parce que man normalement <laughs> émission bi dama waroon ñëw toog bokk ci ndekki bi. bilaay walaay. mais mais moom xam naa ne daal xajaluma ci ndekki. déedéet ah, déet xajal naa ci. waaw xam naa ne daal fayeen bi moom xajaluma ci ndekki. <laughs> Ah, man kay <laughs> man ko Nicolas waxee laa ne ko ak ah, tas nga réew mi de. non man Nicolas yow yow la jël. laa ne ko c'est fini yàq nga affaire bi. man de xaw ma fayeen ak fayeen ak juufeen daal war nañ li jënti. kan moo ci gën a bëgg ndekki ci yéen ñaar. mais njuufeen yi njuufeen yi njëkk njëkk la njëkk a laaj fii korom fi ma sha macha allah euh, docteur ñu ngi lay ziaré bu baax baax di am mbégte euh nañu koy amé sa suné buñ dé jokk ak yow. euh mm-hmm. lu def waxulu ay di jamat bo gisé ñu jokk ak mm-hmm. yow nii dem euh, suba sax la la invité won mais euh, mm-hmm. bi ñu waxtaanee ñu xamné ne inshallah assemblée dafa wara réunir def na à partir de dix heures. ñàkkul ne média yi daan ci délu ci bu baax baax étant donné que yow ya njëkk agité cette idée. Euh, de li nga xam ne ñëpp xam nañu ko euh, muy motion de censure possible na ci euh, gouvernement yi déjà lan moo tax docteur docteur Abdourahmane Diouf dès le départ bi affaire yi a li commencé bëri ci assemblée nga ne député opposition bi war nañu mëna duggal motion de censure dans le bi gouvernement bu Sénégal waaw kay jërëjëf Nicolas xam nga Sénégal ci politique koo xam ne yaa ngi suivre politique dëgg-dëgg di nga xam ne Sénégal guute gi mu nekk nii mosu ci nekk ñun ñëpp dañuy tàmm raayante kenn du wax sa morom dëgg élection législative yi passé dafa dafa xew loo xam ne mosul xew Sénégal depuis 19, jàll na ci Abdou Diouf ba ci Ablaye Wade président bu fi nekk mosoo dem élection législative te amoo majorité absolue donc da ngay nekk pouvoir exécutif ñu fal la nga am assemblée nationale boo xam ne yaa ko dominé di doxal sa politique loolu sénégalais amuñu luñ ciy wax parce que yow la ñu wóolu président Macky Sall nag dafa ñëw ci élection législative yi passé genn wàllu sénégalais yi wan ko gannaaw maanaam autant avant dañ ne ko woon yow yaay président yaay doxal autant maintenant dañ ne ko au moins am na cinquante pour cent des sénégalais yoo xam ne wóoluñu la te ñooñu dañuy yónnee seeni ndaw assemblée nationale nga war a liggéey ak ñoom donc loolu mësul xew Sénégal lu mësul xew bu xewee président bi dafa war a def lu mu mësul def li mu mësul def mooy mu xam ne moom nekkatul buur di buum dafa war a waxtaan ak opposition bi nga xam ne fan bi moo leen fal pour doxal réew mi gis na nag boobu léegi defu ko il gouverne comme s'il avait cent pour cent de l'électorat léegi loolu dafay tekki ni ñi yeneen sénégalais yi nga xam ne ànduñu ak ñoom moom farataawul déglu seen xalaat mu ñëw def un premier ministre normalement bu doon dañuy nekk dans un pays boo xam ne dafa am une vraie démocratie président de la république il faut a waxtaan ak opposition bi muy son gouvernement parce que le gouvernement bi boo ko defee pour mu mën a doxal mooy déclaration politique générale bi assemblée nationale bi moo ou pas léegi non seulement président waxtaanul ak opposition mais mu indi aussi euh, premier ministre Il xam ne bi mu ñëwee démb xam nga motion de censure mais motion de censure dafa am lu ko motion de confiance démocratie parlementaire Amadou Ba bu ñëwee assemblée nationale

ñun léegi ñoo lay défier pour wax la ne ñun wóoluñu la woo ñàkk wóolu boobu nag mooy dem ele mooy tax ñu dem motion de censure bëri na raison yoo xam ne mën na ko justifier mën naa la ci jox ñaar wala ñett bu njëkk bi expliqué naa la ko sànq mooy président Macky Sall il n'a pas une bonne lecture de résultat yi donc il faut que parlementaires yi delloo ko ci yoon pour wan ko ne ko yow niñ la fale ñun noonu lañ ñu pàcc loolu benn la beneen bi mooy dañu war a clarifier li xew biir assemblée nationale ba tey nii kenn xamul kan moo am majorité kenn xamul kan moo am minorité bi Pape Diop nekkee ci opposition opposition moo amoon majorité avec 83 députés mu dem ci Macky Macky amaat majorité minitouré Touré ñëwaat ci opposition opposition amaat majorité puisque nag ci élection yi ñëpp dañ doon wax ñi dañuy liggéeyal Macky ñi dañuy liggéeyal opposition Le Sénégal ñu ngi jëm ci élection bu mag mooy deux mille biir assemblée nationale sénégalais yi war nañ xam kan moo fi majoritaire opposition proposer proposé vote motion de censure mais képp ko xamné voté nga tu es dans l'opposition ko xamné xam ne voté wuloo président Macky Sall deuxième jangat la buñ ci mëna am troisième moy ki nga xamné mom lañ fi teg moy le premier ministre Amadou parce que motion de censure bi dafa nek bëgg le gouvernement mais ci biir le gouvernement dañu bëgg aussi daaneel Amadou parce que même si ñu les gouvernement le président Macky Sall am na droit nommé waat un gouvernement mais il tax ñun ñu viser Amadou amadouba parce que amadouba Ba ministre de l'économie et des finances pendant 5 ans di doxal doxalin boo ministre ne dafa contraire ak intérêt sénégalais à Amadou Ba moo le ministre de l'économie et des finances mon secteur privé français secteur privé nari, secteur privé turquie secteur privé chinois Nous, ñoo que gënal le secteur privé sénégalais. Amadou Ba mooy nekk ministre de et des finances boo xam ne lépp lu Sénégal di liggéey moom jàpp na ne ñi nekk bitim réew ñoo ci gën a yay kooku boo ñëwaatee teg ko mu nekk sa premier ministre war a doxal koom-koomu Sénégal ñun dañu njort ne dafa nar a jëlaat suñu koomu Sénégal joxaat ko waa bitim réew donc bu dara kooku bés bu ñu ko mënee dindi comme premier ministre dañ koy dindi même bu dee Macky Sall am na droit teg keneen bu ma jëbi nag avant ma leen di jox kàddu gi mooy fii lu ñu fi mën ci wax ci politique politique bu Sénégal yëpp tey ngi ci est-ce que Macky Sall dina nek candidat ou des c'est pas de la politique politicienne mais lolu moy réalité bi gis nga Macky Sall momul mandat bi maa ngi gis mu dem États-Unis wa New York Times di ko laaj mu nan mom décision wam la bu jotté dina ci wax dafa faté ni décision wam mandat bi ak décision ak nan lañuy ñuy élection présidentielle lolu sénégalais yi ñoo ko sénégalais yi ñoo koy tey tant que moom taxawul wax ne du nekk candidat pour respecter constitution bi Sénégal ci boppam moo dul dox parce que dëkk bi pour mu dox il faut ñu xam ku koy jiite ak nu mu koy jiitee ak kañ la élection di am ak kan moo fay nekk ak kan moo fay dul nekk ñi xamul politique nag dañuy jàpp ne waxtaanu politicien rek la mais gis nga foofu lay terminer xam nga Amadou bu wax ne keroog ne année prochaine 2023 dañuy am croissance taux de croissance 10 pour cent dix pour cent bu ñu ko amee rek mooy ci koom-koom dëkk bi commencé na dox bind naa ne ko 10 pour cent yooyu doo ko am parce que bu dee année 2023 bi yëpp dañu war a nekk di xeex ak Macky Sall di nga nekk candidat ak doo nekk candidat comme li fi amoon ak président Ablaye Wade ci 2011 mooy nit ñi dañuy tëj bureau yi commerçant yi dootuñ jaay parce que Sénégal ci xeex lay nekk ci xiiroo ak ŋaayoo dëkk boo xam ne nag yaa ngi xiiroo ak ŋaayoo kan mooy nekk candidat sa koom mënul dox te loolu dafay nekk double échec bu Macky Sall raison yooyu yëpp nag boo ko boolee moo tax ñu ne député assemblée nationale

donc loolu laa ci bëggoon wax en attendant seen question mm-hmm. am na solo bu baax xam naa docteur dañ lay dañ lay bàyyi rek def naa tënk nga ko bu baax li ci des moom mm-hmm. dañuy bàyyi sunu sunu gars yi ñu ñu débat ci euh, toj ko et puis demain incha allah mm-hmm. euh, journée bi euh, ñàkkul média yi daañu dellu si bu baax a baax ci boobee journée war a xewaat ci assemblée di motion de censure bi nga xam ne ma fàttali ne député yu yeew yi ah, ñoo ko ñoo ko ñoo ko introduire te démb lañ ko suba lañ koy euh, étudier faut ci assemblée docteur maa ngi lay sante bu baax a baax. dina baax ne vote bi ni démé daf ci am solo. hein parce que mané vote bi ni démé demee daf ci am solo suba. waaw waaw waaw allez-y. vote bi ni démé motion de censure uh-huh. kenn du wax kan mo d'accord kan moo d'accordul ku yëkkatul non dañuy ñëw né motion de censure bi uh-huh. kan mo bëgg ñu daaneel gouvernement Amadou Ba. Uh-huh. motax da fay laaj courage du ñu laaj ku d'accord dañuy laaj kan mo d'accord donc député yi nga xam ne ils sont dans l'opposition assumé ko hmm. ñoom ñooy am courage yu yëkkati seen loxo foofu nag dinañ ci xam est-ce que am na ñu nekk ci opposition bi duñu gëmloo ne dañuy opposé wu hmm. alors que en réalité ils sont de l'autre côté ànd ak Macky Sall ah. donc maa ngi nuyuwaat Mbacké Mm-hmm. di nuyu di Merci merci merci merci docteur Abdourahmane politique Sénégal parti Sénégal eh.

te monsieur la yëkkati genn kaddu ba mu ko xamee mu génn ci réew mi ba léegi ku juunu mm-hmm. jëmale ko ci moom et d'ailleurs nee na du ko def jamais mm-hmm. booba nag bi Idriss Seck ñëwee nag la ko dimbali woon fal ko mu nekk directeur général bi nga xam moo nekk SONES te gis nga lu ko fa jëlee mm-hmm. booba SONES a fi nekk mooy dafa xool na qualité ndox mi ñiy naan ci Sénégal nañ ko xoolaat baaxul te xanaa loolu suñu njariñ ñëpp la gars yi ko fay coow coow li ñu ngi koy fàttaliku en tout cas ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci oyof gi mu ku baax voilà di nit ku baax di oyof bi également ak leer li mu indi d'ailleurs dinaa leen ci jox kàddu ku ci nekk indi ci sa xalaat ak sa gis-gis ñu ngi koy sant encore une fois docteur Abdourahmane Diouf di sant ak di gërëm mbooleem kilifa yi nga xam ne ñu ngi ñoo déglu euh, moo xam ci pàcc bu nekk parce que kilifa yi ci gouvernement bi sax dañuy déglu te ñu ci ëpp ci ñoom dañuy rafetlu euh, liggéeyu ndekki li duñu jóg ci di leen sant di leen gërëm yéen kilifa yi ñuy déglu euh, ci boor bu nekk docteur docteur Abdourahmane Diouf lañ doon motion de censure contre le gouvernement l'assemblée qui tranche demain ainsi euh, un des titres de Sud Quotidien de ce jour c'est demain jeudi 15 décembre que les 165 députés de la 14e législature sont appelés à arbitrer la motion de censure déposée par l'opposition parlementaire contre le Premier ministre Amadou pour rappel le chef du gouvernement du gouvernement qui faisait sa déclaration de politique générale avant-hier donc lundi avait esquivé le vote de confiance, alors euh, demandé par les députés de l'opposition en riposte. Ceux-ci ont déposé une motion de censure contre le gouvernement qui sera donc examinée demain jeudi. Euh, euh, bokk Yann ci Sud Quotidien à sa une du jour comme dirait Mbaké une fois n'est pas coutume. On est bien le jeudi 14 décembre 2022 Benin titre Sud Quotidien Boutaï Biledi bi la di gouvernance sobre et vertueuse des deniers publics le rendez-vous manqué de de Macky noné le ko euh, Sud Quotidien fësale tey gouvernement sombre et vertueuse bi Macky Sall don prôné bobo légui léegi ñëpp gis nañ né lolé dara amu ci oustaz docteur Abdourahmane Diouf déglu nañ la wax ci motion de censure bi nga xamné mom moko moo ko agité ba tay opposition bi euh, fas yéene ko introduire suba ñu nar ko euh, ki ñu darté tey liggéey ca assemblée. lan lan nga jang ci li mu wax. waaw bu njëkk bi moy xam nga dama ci njëkk a moy ak fang lay doon fang xam nga tey kenn du ko caisse mm-hmm. maanaam tey bukki yi nga xam ne dañoo sangoo deru ba yëpp mën nañoo feeñ ndax bu ne yëkkati leen ku yëkkatiwul fële nga bokk mm. loolu man démb rek maa ngi koy waxtaan ak sama benn waaye ma ne bu dee la ma jàngoon fàttewuma ko normalement dañoo war a ki ci d'accord ak ci d'accordul te loolu mën naa yàgg ko mën naa bañ a yàgg bu fekkee am na sërxal nañ ci débat mais souvent man damay koy faral di wax fii gars yi naan ma yow loolu am solo la mais gis nga nit ki lépp luy am nañuy seet tamit réew mi ni muy doxee am na xale yoo xam ni tey ji boo leen waxee ne leen motion de censure comme ni nga ko waxee léegi ni mm-hmm. yéen booy ci booy nga bokk danaan man guléet wala mësuma ko dégg wala tey la en 1962 ci diggante Mamadou Dia ak ñom Lamine Gueye bi nga xamee ne dañu sax booba la gendarme yi njëkk sax ci assemblée nationale. Mm. c'est vrai qu'en France aussi te boobu nak 22 août le woon boobu général de Gaulle la fa nekkoon mais lima bëgg wax fi ci réew mi moy gis nga motion de censure bi mm. manam xaq la jo xam opposition bi yoon da ko ko may règlement intérieur réew mi tamit may ko ko. Mm. fi nu ko defee nag dafa am dafa mel dafa am lu suñu borom nar a leeral ndax gis nga mbir da nga bokk wala nga bañ caa bokk waxoon naa fii ne man mënuma comprendre ne c'est vrai que nag comme budget yi buñ ko voté bu la neexee nga voté ko bu la ba neexee nga bañ ko mais gis nga booy xeex dara te bëgg loolu jóg fa gal galgal boo am da nga ko cee daal di def léegi bu ne kii 81 la am kii am 82 wala am kii 82 kii 83 mhm. mais malheureusement li mu fàttee li Abdourahmane Diouf dama yaakaar ne xëy na da koo fàttee wax mhm. mooy ñi nekk ci biir assemblée ba te amuñu génn péete ñu duppee leen ay non alignés mhm. loolu ñoom ñoo kenn du ñoom ndax ñoom buñ watewul fii doo leen mën a doo leen mën a wax dara te buñ watee fee doo leen mën a wax dara ndax ñoom newuñu la ci opposition d'accord opposition lañ bokk am nañ boobu liberté tamit waaw loolu moo tax moo tax ma ne doo leen mën a wax dara xam nga xam nga moom koy wax ji leeral naa ko mm. am nañ ci droit moo tax ma ne doo leen mën a wax dara mm. ci ci wolof léegi nag ñooñoo tam bu demoon ba ba ne fàng nag ba nga xam ne ñoom dem nañ ca genn làng ga mm. su keroogee nag la mbir yi di gën a leer moo tax affaire bi bu ne yëkkati leen tey ji bu ma bokkoon ci noonu la ñëw su ma yëkkatiwul tamit doo ma a boole ci sa mbooloo moo tax affaire bi tey gëwuma yi tamit ne dana jàll am na solo nga ne gëmo nga ne gëmo ne motion de censure waaw amu ci yaakaar amu ci yaakaar le ci yaakaar loolu daañ ci dellu si euh, jox xam nga ñu ngi en direct ci YouTube bi ak Facebook bi di leen sant di leen gërëm euh, ci commentaire yu am solo yi ku melni lampe Fall euh, né ñu def cri du cœur pour les dialysés

qui euh, ko ci nek euh, itam mën nga indi euh, contribution ci lille nga xamné ñu koy euh ñu koy ñu leen di bu baax di leen gërëm dafa am nañu message bu am solo euh, jëm ci émission bi lay xamna naa jombul daa ci dellu si mom kii mu ngi euh, Angleterre hein. euh, Fallou Fatou Diène voilà mais macha elle est très contente d'écouter l'émission leader de Sud FM Ndekki li. Mhm. Alaaji Mbàkke si la nga docteur Abdourahmane Diouf la wax dégg nga itam Maodo la mu ci tek nee gëmul motion de censure ba jëm suba dana aboutir yow noko jàng. am solo jërëjëf Nicolas jaajëfal bu baax baax docteur Abdourahmane Diouf de baax dëgg mom euh ñi am xam-xam ñoo seede ne boroom xam-xam la. te itam euh, ku yaru la ci ci ay waxam yaru yitam ci doxalinam. néew na looy dégg ci réew mi nit wax baat bu fees dell ay nopp. mu bàyyi koo ci moom. Euh, te itam politique bi léegi daa ànd ak loolu ak euh, ñi nga xam ne dañuy wut bës yooyu. Mm-hmm. day mujj ni koy wute mooy di fëgg ca kaw wala di wax wax ju juunu loolu tax na foo fu mën ngaa wax ne foo cliquer jàkkaarlook ñoom. Mm-hmm. moom nag ci taxawaayam. mucc na ci loolu euh, wax ji mu wax fii itam am na solo lool tey ma jaajëfal la ci bu baax parce que itam ñu bari dañuy dégg euh, euh, xew-xew boobu ah. waaye mënuñ te duñ xam lu xew moom mi nga xam ne bokk na ci ñi ko njëkk a waxtaanee te nekkul député nga indi ko mu joxe ci ay ay xalaatam mm-hmm. loolu yaatu na lool ndax it jàpp naa ne waxam ji yóbbool yóbbaale na waxi opposition bi yëpp mm-hmm. donte ñi far ci geneen langue gi jotuñoo dégg seen i kàddu mm-hmm. man nag bu dee sama xalaatu bopp man ci sama jëmi bopp moom damaa jàppoon ne lii jëru ko woon motion de censure bi hmm. waaw man man gisuma solo sum am daal wax dëgg yàlla xam nga ñun réew mi dañuy bëgg a sonn ci euh, diggante ay député maanaam ay élection hmm. ay euh, coowul assemblée coowul nangam coowul nangam biñ bloqué réew mi hmm. man nga ne ñaari at yi ñu génn ba ci at mii ñu dugg ak at mañ jëm yëpp xaw tuuti kon nga ne buñ toppee opposition bi lii ñuy wootee réew mi moom ab liggéey du fi am euh, maanaam maanaam bii coog mbaaloo doo nga fi am xam nga tey gouvernement bi du problème man jàpp ma ne gouvernement li raison yi mu joxe nii li tax raison li tax lay yi mu indi convaincre ma mooy jàpp ma ne problème réew mi Amadou Ba mu nekk premier ministre la euh, li ëpp ci nangam ñi koy jox ay étranger li li ëpp ci nangam ñi koy jox nangam jàpp ma ne loolu mooy problème mu Sénégal parce que euh, Amadou Ba ab diir a ngi nii boo xam ne nekkul. léegi lan mooy lan mooy problème Sénégal ñi gis réew mi kay ñooy problème mu programme yooyu mooy doxal réew mi di yooyu yooyu muy wax noonu yooyu Abdourahmane Diouf doon wax nga nekk kii wax sa kii wax gouvernement bi autorité euh, ñu nekk France loolu mooy suñu problème. di loolu problème problème yaa ngi doog a door. <laughs> waaw loolu loolu loolu suñu bu ñu si jógee rek problème yi jeex. Ah, xam bu bu nag coow nga xam ne moom la njuufee def ci marché yeeg débat yeeg réseaux yi mais tey bu bu réew mi moomaatoon boppam ba lépp lu ñuy def mu nekk conseil local seen programme bii ñu def nii ñu xam ne ñun ñoo ko moom milliards yi dellusiwaat ci ñun kon réew mi dox. d' accord euh, bu fekkente ne bu ñu defee motion de censure réew mi dox nga xamante ne milliards yooyu dem ci bitim réew dana ñëwaat euh, yooyu yëpp dana dana ñëwaat kon bu boobaa def ko am na solo su fekkente ne nag def ko moom euh, maanaam coowul politique rek la ñuy la ñuy indiwaat parce que yaa ngi wax léegi ca année 62 yooyu nga ne ca la gendarme yi njëkkoon a dugg assemblée yaakaar naa bu subaa itam gendarme yi bay bon ñu bañ a sori assemblée ndax boo muy tuuti danañ fa duggaat ndax waaw euh, <laughs> man kay ñaanuma ko mais ah, sama lu ma lu ma prévenir que euh, guérir tamit lu ma yaakaar la ndax la ko fa dugaloon maanaam defuñu woon lu toll ne motion de censure xam nga xaw tuut nga baal ma mbàkki xaw tuut bi passé lundi Barthélemy Diaz benn instant mu ngi wax président assemblée du dugaloon nga fi kii homme de tenue yi mën nañ duggaat parce que maa bañ maa lànk du ma wàcc ba gars yi dem négocier ak moom ba mu wàcc <laughs> donc lii Mbacke di wax dëgg la kon il vaut mieux prévenir que guérir. voilà léegi nag bu ko defee euh, loolu moom am na beneen bi ci topp nag te doon loo xam ne mën na leen a jariñ ñoom opposition bi mooy man nañ cee xamee euh, euh, maanaam ñi bokk ak ñoom combat ak ñi bokkut ak ñoom combat xam nga tey bu doon watu enveloppe la moom kenn ku ne mën ngaa def ci la ngay def ñëw toog ne muq ndax Sénégal nit day wax ci kaw te la muy wax ak waawam day tekki déet xam nga réew da ngay koo xam mm. mm. da da nga ko wax mm. déet lay tekki yow yaa comprendre léegi boo comprendre nag euh, doo comprendre mukk doo xam ko ànd ak ak ku àndut ak yow loolu moom day dal bay dal sax président dal itam ñi nga xamante ne ñooy woote opposition moo tax démb dana bu subaa dana am ñoo xamante ne loolu dana leen fës ci miir bi bokk ko defee ñu àndam déet mais jàpp ma ne tey nit mën naa mën naa wax ne man député laa doon député opposition ba noppi jàpp ne motion de censure bii moom du ko wate parce que jàppu ne euh, donc wate ko am na solo bu hmm. boobaa mu wate non non te teewul mu nekk opposition hmm. man loolu sama gisin la hmm. parce que tey jii bari na lu état di doxal loo xam ne ànduma ci moom waaye su ma nekkoon ab député suba ma nekk assemblée bu ñuy watee motion de censure bi ne dañuy daaneel gouvernement bi non non laay wax bu ko fi kenn daaneele nañ leen bàyyi ñu doxal te waajal jëm ci élection yi nekk fi di daaneelu gouvernement ak hmm. président sañ na ko defaat ak teggi loolu moom teggi ngóor teg jigaan lay doon rek hmm. waaye daanaka ñoom ñëpp benn euh, ñun ñëpp benn usine bee ñu mool mburu foofu ko fëriñ lay doon hmm. euh, liñ euh, liñ bëgg a soppi jàpp ma ne daaneel gouvernement moo koy moo koy soppi bu dee ci wàllu politique nag ay tactique yi politique ak nekk ci coow loolu moom amal na leen solo booba xam nga non xam ah, bien affaire. xam comprendre il faut ñu waxuma il faut nga. comprendre ce n'est pas parce que opposition bi euh, dafa bëgg def de censure que le buñ ko fi wala mburu ko fi non c'est pas ça en réalité mm-hmm. c'est quoi c'est quoi parce que xam nga Abdourahmane wax dafa wax premier avant muy dafa selon ni yi ba xam am nañ mm-hmm. opposition moom wóor na leen ne ñoom amuñu ci ñoom majorité bi amuñu ci moom kóolute. surtout waa Yewwi ñoom kon ci kan la ñu am kóolute. waaw mais est-ce que est-ce que ñoom président mën naa tànn kenn ci biir APR koo xam ne jàpp nga ne opposition bi dañ ko ne kii la ñu wóolu assemblée bu ñu ko daanee dañuy wutiwaat beneen wate ji wala demee noonu euh, léegi kan mooy wutiwaat beneen boobaa itam président mooy amaat sañ-sañu tànnaat keneen ah, mën naa tànnaat keneen te du leen ci laajaat bu boobaa dañuy demaat defewaat mosul non yow déedéet waxuñu la président mooy bu gouvernement bi daanoo assemblée nationale daanoo président néewul mooy mooy tànn président assemblée nationale déedéet bopp amul bu daanoo amatuñu assemblée nationale non euh, nañ yem ci gouvernement bi gouvernement bi admettons suba ñu euh, kii motion de censure bi daaneel ko mais kon am Sénégal amatul gouvernement ñu seet nu ñuy voté ñu falaat beneen gouvernement légui nak lool nak bu keroogee mhm. nit ñi seen bop ñom ak fi li ñu jot a liggéey kës néew ñooy xool nañuy ñani ñanuy nak yenen yeneen élection yu demee noonu loolu nag moo amul sens dans tous les pays du monde il y aduna wërngal et pouvoir opposition hmm. pouvoir bi mi ngi doxal waaye nag bàyyi leen pouvoir bi rek muy doxal ndax ñun ñëpp a loolu moom bu dee loolu kon bay boo réew yëpp taxaw réew yëpp France Burkina Faso lu baree bari seen i combat seen combat yi bopp dong la gis nga jamono ji ñu doon wax naan wàññi nañ dundu gi ak dundu gi seer naak li fiy soxal askan wi lu néew ngay dégg mu jaral leen sax ñu def ci benn benn conférence de presse wala wax ci waaye lu jëm ci ay tactique yi politique yi ñu nekk njariñ xam nga non d'accord man nekkuma ci opposition bi yow xëy bu la neexee nga toog fii ne opposition bi seen bopp lañ fi nekk sama xalaat laa wax ci ñoom waaw d'accord man ko non kon kon bu ko àtte ko non ay bu yow bu waaw mais mais man sama xalaat non yow ko commenté bi commentaire bi ku la wax baaxul xanaa ci yow la baaxul man maa ko dégg dégg lu baaxul waaw man dégg la baaxul maandu ci rek bi ma ko waxee ba nag fa ñum waaye nga toog ba ko muy tegee ah, ah, nga wax sa léegi waaw léegi boo fi toogee bu ma ci maandu kon du ma wax di ah foog nga loolu léegi kon doxal waaw ne dinaa wax mais mais say wax nag moom fee laa koy sànni sànni fële <laughs> léegi xam nga coow non non metti na mais ah. parce que Mbàkke ci boppam moo metti yéen di ngeen xamul ne Mbàkke mi ku metti la <laughs> léegi léegi opposition bi ci boppam uh-huh. léegi man l'opposition est dans son rôle uh-huh. parce que gis nañ loo xam ne lii neexu leen gis d'ailleurs suñu titre bi rek léegi war na ci lu bëree bari sur quotidien bi xam nga ni tey jii ñoom bi ñu doog a tàmbali dañu waxoon ne dañuy def gestion boo xam ne bii dafay nekk bu sobre ak vertueux. Mm. te loolu kenn ku ne xam ne gestion boobu kenn ku ne xam na ni tey jii ku xuli sa bëri yi xam nga ni réew mi gestion bu vertueuse amu fii. lan mooy loolu lan mooy sobre ak vertueux. mooy loxin wax maanaam ci ma la ko waxee wala ndax yow sax moo léegi ñu xuloo ci mag yow mais. mooy loo xam ne bu ñu la ko joxee nga yor ko expliquer rek ko man mi ko waaw damaa laaj kay soobur ak vertige maanaam lim lim bëgg wax mooy ah. dund gi dund dund dund gaa yi ah. ñu yore nguur gi mu nekk dund goo xam ne gi comme maag yow doo leen xàmmee ci dara lépp simple doo leen gis ñu wane yore affaire yi lañ wax ne yéen alalu réew mi ngeen yore yore ko ci yorin war mu sell lay doon bu leen bu leen këpp kees bu leen def dara mhm. na lépp jaar ci yoon mhm. loolu mooy juste loolu amul moom loolu moom ko mhm. waaw loolu waaw léegi nag loolu la wax ne mooy sama gouvernement de combat gouver opposition bi nee nañ ko loolu ànduñu ci tey ànduñu ci la da ma bëgg a wax ne kon euh,

non motion de gouvernement motion de censure euh, non xam nga bu le du té président Macky Sall moom ci boppam mu nekk mais gouvernement moom dafay do motion de censure gouvernement bi wax. Amadou Ba waaw Amadou Ba barki day dañ koy hmm. de politique générale bi day zéro hmm. ndax loolu mu waxoon ba pare gars yi mu xam nan ko ko delluwaat ko ko daat koy daaneel kon léegi kon loolu dootu fi nekkati moo tax man l'opposition est dans laa toog ne naa ne man wóor na ma wóoral yàlla ni motion de censure bi du jàll hmm. parce que ñi nekk ci pouvoir bi am nañ ay galgal te xam naa ne tamit danañ danañ lijjantee lijjantee lijjante ba nga xamee ne hmm. fi mu toll nii bu subaa ko wotee itam hmm. man jàpp naa ne ay 99 pour cent gouvernement bi du daanu assemblée nationale du daanu. Hmm. mais nak opposition bi hmm. limi def. rërëm hmm. la. duna ñom buñ fi joggé bu ñëw ñëwee sambay bacc ak nangam ak nangam. mais nañu nañu def seen rôle ñu liggéey def jërëjëf oustaz fàttali loolu nag bokkul nak ak coow coow yu politique yi. nga xam jërëjëf oustaz maa ngi dellu si fatali mbokk yi ne ñu ngi en direct suñu ay plateformes digitales notamment YouTube Facebook sur la première radio d'information information ndekki di émission numéro 1 bu Sud FM alors euh, ci chat bu euh, euh, YouTube bu Sud FM justement des réactions très intéressantes puisque ni mako ko bari na sénégalais yo xamné dañuy indi contribution contribution yu amal solo euh, ak njëriñ askan wi Penda fay par exemple bind na lii ci caat bi le poisson est pourri de la tête au pied. changer de gouvernement ne changera pas grand chose seulement cette motion de censure est un acte politique fort pour l'opposition maanaam euh, moom peut-être dafa jàpp ne li ngay wax ni moo nar a am maanaam motion de censure bi narta jàll mais acte bi ci boppam opposition bi acte bu fort lay il est dans son rôle ok même bu dee sàmbaay bàcc sax ñoom li ñuy li ñuy def loolu dañ ko war a def pour hmm. xam ne ñoom tamit ñi ngi fi ñi ñu yëg leen ñu def seen liggéey hmm. Euh, loolu loolu loolu itam lu am solo waaw euh, moom kay dana am dana amaat yeneen lépp loo xam ne jàpp naa ne yoon may na leen ko moom mm-hmm. jàpp naa ne danañ ko def mm-hmm. man opposition bi xëy na bari giñ bari ay député baax na ci ak wet mm-hmm. lool euh, côté yi baax sax moo ëpp ndax buñ joxoñee lu mel nii ci wàllu démocratie bu yàlla dogalee ñu def ko niñ ko war a defee ba mu jàll ak jàmm nga xamante ne yàlla dogal na jàllut ndax man bëgguma mu jàll bëgguma bëgguma gouvernement bi daal am na ba nga baal ma ci YouTube bi kuy kuy dëggal li nga wax ne bien dit Mbacké je trouve que cette motion de censure ne fait que retarder les choses et qu'est-ce qui nous dira que le gouvernement d'après sera meilleur. voilà donc aussi l'olé xeetu laaj la mais encore une fois ne serait-ce que acte bi. bi opposition di posé acte bi kay baax na moom acte bi baax man ma fait ma fekkee. motion de censure fii ci Sénégal gouvernement. c'était en 62 la mujjoon c'était décembre 62. loolu yàggoon na. Hmm. ay ñoom Lamine Gueye wax naa un léegi ak ñoom Mamadou Dia ñoo fi nekkoon keroog Mamadou Dia moo fexee opposé na affaire yi du Dial. parce que nous bëggoon a le gouvernement bi xam nga. Hmm. Euh, bu fekkente ni rek la ni rek lañ mën a gisee mbir yi kon ñun ñëpp bay boo ñu laxas émission bi yëpp dem tok suñu kër mm-hmm. parce que bu fekkente ne danaan bon fi jëlee ñi tam ñëpp a mm-hmm. c'est-à-dire que kon dootu ñu am ñun xërëf mm-hmm. dootu ñu am tamit yitte wara a jall ci jàll kanam kan wax boo leen fi jëlee ñëpp a yem waaw euh, da ngaa dégg ma tudd la non non da nga ne da nga ne bu dé mom lañ fi wax wa mais sama wax lay wax leul sa sama wax Ousmane Dieng ci YouTube bi xam nga dangaa fas yéene défendre bu mu ëpp ba limay wax même bu dé dama lay dama damay wax ci biir li ngay défendre rek est-ce que mën naa lire contribution ah, yi vite fait ah. Ousmane Dieng ci YouTube bi mu ngi né l'opposition doit faire son et faire sortir les traîtres non le leen tuddee donc euh, lolé dinaa ci ñëwaat légui léegi parce que euh, d'ailleurs sànq juñu nga ko par rapport à opposition bi ñi voté ak ñi dul voter et etc et cetera bukki euh, daru da ci bari quoi. waaw waaw contribution yi également daf ci daf ci bari yu am solo Biram par exemple né le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée avant septembre 2024 soit deux ans après son élection donc moy par rapport à li nga doon junj donc biram noné le la ko expliqué bari na explication sénégalais yi amérique ak italie ñom ñepp ñu ngi réagir euh, ñu ngi leen santé bu baax di leen gërëm ci tiofel bi vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et l'olé amuñu ci sen fay n'est-ce pas euh, euh, Lamp Fall né merci pour que li ñu jallalé message am depuis Chine ñu ngi nuyu wa Chine yëpp sénégalais yi nekk ci aduna bi jaa ngeen et merci d'avoir fait le choix de la différence ak diko top sa suné euh fuñu tollu ñu toll yéen ak ñuy topp di ñu gën di bégee bu baax baax Tambacounda Tambacounda ici aussi ñu ngi signalé wu Youssou Koulibaly ñu ngi lay sant bu baax di le gërëm ak di euh, len sante bu baax di len gërëm ci tiofel gi également euh, di sante di gërëm bu baax baax Papi Sakho enfin ñëpp ñi nga xamné ali Aliou euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi Aliou Dian Amadou Thiam ñom ñëpp di indi ay contributions ci chat bu Sud FM on est en direct ci YouTube merci beaucoup sank da nga junj euh té loolu itam problème la bu ñu démé suba motion de censure bi vote yi am est-ce que dinañ xam ñi voter oui ñi voter non. xam nga xam nga ak lay doon. xam nga tey bu bu nee nii ñëpp yëkkati léegi ñu yëkkatiwul dañuy xam ne nangam ak nangam ah. mais day nit day toll foo xam ne fii xam nga réew mi tamit naa bañ a nekk problème ndax ko ko watiwul boo ko waxee mën la sama droit la loo ko mën a xam nga mais leen fësalee noonu ñoom ñi voté non ko wax fi moom ñëpp dégg moom hmm. mooy wóor dama moom ñi bokk yeew yi ñëppay tàllal moom hmm. ndax ñom ñoko gisuma kenn kuy ko de toute façon introduire donc a tout intérêt à ce que mais mais ba ah, parce que on n'est pas dans leur secret xam demain mais je opposition te opposé wu ci motion de censure bi est-ce que da fay tekki bu boobaa ne bokku ñu ci opposition. ah non non non c'est sûr ba rek ci opposition bi lañ bokk dañu def seen choix bo xam ne bii dafay day bari choix bobu day bari ay bari buntu yu bari yu muy buwaat nak yu muy laaj yu bari bari bari hmm. ndax ba ngay falu la nga doon campagne ñi baaxu ñi buñ fi nekké nangam ak nangam dañ leen fi war a hmm. li ñi liggé ci assemblée nationale askan woowu nga wax leen ba convaincre leen ñu andi la hmm. ñu nak légui léegi ña doon wax kat demb ak barki demb kat yow ya tay jaka ya tok toog jàkkaarloog ñom sa naw la ya nga doon andal bëgg a wujjeeg ñii kat nii nañ fi jóge nga nañ fi togat bu ko rogee yow mais yow la laaj yaay kan. Mm-hmm. ok euh, Mbacke euh, est-ce que bu boobaa dañ leen nar a euh, stigmatiser. non ko yow opposition nga bokk wala bokk opposition. wala parce que loolu opposition moom mënut a ñàkk ci réew. foog à la kulli àlin day am léegi nag mi ngi dépendre te nañuy opposé léegi nag bu fekkente ne yow la nga def sa waxi démb jaak sa waxi tey jee yem wala wala boog waxi démb jee da nga ko def xiinu suba mais gis nga man yàlla dogal na gis nga bi ñuy def campagne bi di di fal député yi bari na liste bi baax na liste bi baaxul kenn ku ci nekk suñu borom dafa maa dimbali ba dama la doon déglu la nga doon wax gis nga ñu nekk ci opposition bi ñëpp ñu ci baree baree bari ñoom dañ jàpp ne ah, amaguñu assemblée ba léegi c'est vrai que ñoom it bañ ñëwee daanaka seen taxawaay xaw naa doy waar mais léegi ñoom ña doon wax loolu tey bu nee léegi na fi loolu jóge ñu ne na fi toogaat bu keroogee ñooñu ñooy ñat. sauf que loolu rek lay laaj sauf que Mbacké non yi dès le départ ñoom war nañ seen bopp. dëgg la bëgguñu bokk fii bëgguñu bokk fee ñoo am liberté seen liberté bopp aussi ne ñun bokkuñu fenn. ah ñooñu itam bu subaa bu ñu nee euh, noo wala wii wala est-ce que war nañ leen. Euh, ñooñu kay bu leen kenn wax dara ndax li Maodo wax nii léegi bu fekkee ku aligné kay euh, buñ du buñ yóbboo yëf ji far force dañ koy wate. Hmm. ñoom moom jàpp na ne waaye yeewi dañ koy wate ñoom ñëpp. Hmm. bu nga xam ne amatuñ xalaat man wax jooju daf ma delloo ci lu bari ndax dama daan mettitlu bu fekkee dara daa jógee ci présidence place ñëw ci am ministère wala dara ñu indi ko assemblée député yi bokk ci euh, gouvernement yëpp daal di koy wate dama daan wax ne nit mën naa bokk ci mbir ñu indi ko nga xalaat gis ne daa d'accord ci nga wax ne yow daa d'accord ci hmm. waaye tey itam bu dee li daa bàyyi ko ci ci waa yeewi euh, nga xam ne ñoom ñoo ko déposé Maodo loolu dal xelam ba mu jàpp ne ñëpp danañ ko wate hmm. boo boobaa ñoom wax ma député yëpp de dama ne ñi bokk ci waa waa waa wàllu ba nañ ko bañ a wate waa déedéet waa wàllu ba nañ ko bañ a wate waa pur ba nañ ko waa yeewi bi ànd ak Ousmane Sonko loolu laa wax ah kon baax na loolu laa wax ngeen boole loolu laa wax loolu ñi bokk ci yeewi laa wax euh, léegi loolu lool sax amul solo mm. boobaa nekk non aligné mm-hmm. euh, sax moo gën ndax non aligné moom léegi danga man di tànn bu dee bu dee dara bàyyikoo na ci euh, état mm. bu laa bu bu jubee ci yow jub ci réew mi nga jàpp ne moo gën nga wate ko te dem ñibbi mm-hmm. lii ñu indi nii boo ko xoolee xam ne gënut lu ñuy tardeel dong la mm. nga bañ koo wate te ñu jàll ci leneen dëgg-dëgg am nañ yeneen yoo xamante ne nag opposition bi moom ku maanaam koo xul lii da wax ca la ca des léegi léegi combat bi combat ay jëmm lay bëgg a doon wala wala combat eh, eh, yi nit nit yi fi ba bloqué réew mi amaluñu benn njariñ bloqué bloqué bloqué li dox amaluñu benn njariñ imagineel ba président falee premier ministre ba léegi Nicolas léegi lan mooy dox eh, ba mu falee premier ministre ba léegi boo defee ah, ma bloqué lay dox waaw kii wële dama ba mu falee premier ministre ba léegi Maodo ba ah, non non kàddu dogguma ko dogguma ko oustaz ma dese bëriwul waaw demal demal demal dogguma la ah. boobu ba léegi dara euh, man ngaa wax ne defaguñ dara mhm. euh, premier ministre bi toog na lu man ñetti weer euh, daanaka ba ci cottital yi door a def déclaration de politique sénéral mm. ñu war a bàyyi koo ci loolu jàll ci leneen léegi euh, dëgg-dëgg fi mu nekk nii euh, maanaam maanaam suba rek nit ñi xëyaat député yi dajawaat assemblée ñu leen di wanewaat jàpp ne lu ne la ñuy wax ñu naan ay daaneel gouvernement def motion de censure ak def nangam def nangam am na yeneen yoo xamante ne nii moo ëpp solo fuuf ci réew mi yoo xamante ne nii lool la ñu war a loolu la war a combat yooyu lañu ñu war a xeex ci yooyu lañu ñu war a wax. Hmm. mais li ñu wax nii après bu ñu nee daaneel nañ ko moom nee na président am na sañ-sañu defaraat beneen gouvernement. Hmm. léegi bu ñu ko daaneeloon tey. Hmm. donte man bëgguma bëgguma gouvernement bi daanu ma waxaat ko.

Alors, quelle sera dans ce cas euh, la stratégie Va-t-on tourner en boucle et oublier encore une fois la population pour ah. hmm. ñu rôle de mais dama ne la wax naa gouvernement hmm. mais yàqul dara nag ci fonction état bi de fonctionnement état bi bu ñu gis nga assemblée nationale hmm. non yak nako suba suba suba tambu tol toll ñu ñu non ministère yaa liggéey ministère liggéey lan non ministère yaa ngi liggéey école yaa ngi jàngi pièce bi mi ngi dem. oustaz loolu la n'a rien ah, ah. maa ngi lay wax ne parce que lundi yaa yoon fii. maa ngi lay wax ne lundi bëri na ñu demul seen bureau bëri ñu liggéeyul. bëri ñoo xam ne itam saa bu ñu waxee assemblée ak opposition dañuy kii wak comme demain ñu bëri dañuy préféré toog seen kër. parce que dañ naan on sait jamais non non xam nga lu ko waral hmm. loolu ci jëmmi nit ki la mais bu doon dans les pays yi nga xam seen démocratie dafa élevée hmm. du leen tee xëy dem liggéey yi ah, foofu lañu toll ñun ñoo toll ñun ñoo toll ci doyadi googu parce que néew ñu kenn bu liggéey ñun ñoo doyadi rek hmm. waaw en tout cas daal yaa maanaam cere ji neex na moom nga ne tànk laa ko mooñi hmm. moom jëru ko ci oppose yaa ngi opposé yéen ngi yéen ay acte askan wi mi ngi ànd ak yéen euh, tolloowut ak nag fu ñaxat ga lay na rek nga jóg euh, indi yoo xamante ne na ah, la première fois nag maanaam ñorut guleet waaw kon guleet ci euh, maanaam ñorut yenn attaque personnelle yi ñorut hmm. nañu nañu nañu bayyi yoyu te ñom ci bopam ñoo gëna askan wi nañu indi lo xamantene japp hmm. jàpp askan wi seen bop dañ ci am ndariñ hmm. dañ indi ay lay lay yi ma dégg ni mom ah, non non non non non li li wara li wara a askan wi lay yi non xam nga li wara a askan wi dembu loolu Amadou Ba wax na ko de ñom ñoo yoré gi léegi nañ ko ko ñoo mi nañ ko bàyyi mu doxal ko ay tax motion de censure non bu du ko doxal nañ ko mu doxal ko réew nañ ko mu gouvernement def 12 ans attention. non non des <laughs> ah, waaw pour nga xam ci affaire bi 12 motion de censure di dinañ ak antenne bi d'ailleurs koy assemblée. président Macky Sall def na euh, dama rek mandat bu rek ci wax. xam nga xam nga président dafa dafa dafa le flou il maintient toujours le flou. manam mhm président Macky Sall dafa verte wala dafa jaune wala dafa bleu ndax ban ko ko laajee itam dafa ne. Macky Sall kañ xam nañ ñu mel nak waaw non d'accord mais ci laaj ci cadre yi lay wax quoi mais ban ko <laughs> non c'est est une façon de parler quoi mais dama xam ne bi ko ko waxee dafa wax ne lolu mom mom décision bopam dogalu bopam la. nee na kàddu yi bopam la mais nak gis nga Macky Sall tontu na ba noppi nag mënuñoo nax ne ñaar yoon nak waaw waaw ni wax New York Times bi dafa ne waaw man lolu dogalu bopam la mais dogal bi kay jëloon na ko bu yàgg nee na woon du ko def. manam paré na ci sax la jëfëndiko won manam maanaam def na ci bu ma defaatee bii mooy maanaam tontu na quoi moom li wax ci journal bi New York Times né lolu décision bopam la bu demee ba ci àgg te buy dogal ak luma mën am kooku mom la engagé décision personnelle mais lolu waxon nako lolu ñun sénégalais ñoko pousser ko yëf yi tok di ko xaar ndax ñun ñi naan nañ xaar président waxagu ci nañ xaar président waxagu ci ñun ñoo warul wona tok di xaarati président mu wax ci déedéet da amul lu jotati affaire bi jotoon na bu yàgg wax na bu yàgg gis nga affaire bi ci maître wad la joté won hmm. ba Abdoulaye wad di dem candidat gaay yi bañ mu forcer ba dem hmm. candidat ñu hmm. gagné ko président indi indiwaat constitution bi né nañ ko défarat ndax ñaari mandat di am mu bañ a ëpp ñaari mandat bobu la mbir ñi leeroon waye aw nit ñu am jot mom tok di wax di eh, di kebetu moom itam day and ak ñun ci kebetu yi naan leen kebetu leen te xaar ma man waxaguma hmm. légui ñukoy xaar nak mu wax mais ñun dañ ko wuru woon xaar muy waxati hmm. ñun ñëpp dañoo warona and xamné amato lo ñuy wax hmm. li ñu doon wax wax nga ñu ko mi ngi ci luwaay yi wate nañ ko bo figalé demal keneen jël jeex na jërëjëf ah. sa seen xalaat rek la ci bëggoon ci tënk jaa ngeen jëf euh, Sénégalais encore une fois ci chat bu Sud FM vous étiez très nombreux à nous suivre et très nombreux à réagir merci sunu ay partenaires médias Sénégo euh, jotaay bi TV euh, Thiès Info ak euh, site d'information yep yi top émission bu mag bi lee di émission numéro 1 ci sud suba suné ci chat bu sud FM ñu ngi sante bu baax di gërëm itam Ahmed from ñibi ne big up Nico Mbake et Maodo ziar naa bu baax baax vous êtes les meilleurs merci beaucoup jaajëf Serigne Mbacke Sylla Abibou cham mo wax lolu ñu ngi koy sante bu baax diko gërëm mom itam di sante bu baax di gërëm également Matar Diop ak Joseph sar vous êtes les meilleurs machallah jërëjëf Joseph Sar ak mbooleem ñi nga xam ñu ngi ñuy envoyer papis li fàtte wuñ la ñu ngi leen di béggee bëri ngeen sénégalais yi nekk ci aduna bi yépp tassaro di béggee émission bu mag bi lé di ndekki li émission nandite yi adjudant euh, chef Tafe Cissé ma ngi lay big up di la béggee sa su ne yaa ngi gën a sopp ndekki yow ak euh, mbooleem adjudant yeeg commandant yi top émission bu mag bi lé bëgg ko lool sa su ne ñu ngi leen di sant di leen gërëm sante bu amul app bu amul fay ma ngi sama xel dafa dem ci tonton El Hadj Tandian Diouf ah, ñu koy xalaat encore une fois yàlla fexal ko bu baax baax on est de tout cœur avec euh, sunu suma mm-hmm. papa pardon El Hadj Tandian Diouf euh, wéral ak jàmm kon nag oustaz. Euh, waaw ñu joxante xam naa ma souhaiter le bon week-end. waaw waaw incha allah jërëjëf yàlla na ko yàlla def merci. <laughs> voilà merci waaw waaw euh, boo ko waxee lu may wax. Eh, bon week-end. bon week kon. bonbon. Voilà, bonbon. <laughs> Rendez-vous demain soir avec Oustas l'une salle. Merci à l'équipe digitale, merci à l'équipe technique, merci aux sponsors qui vous ont offert Nekili, émission Nanditei. Merci à vous d'avoir été toujours aussi nombreux à suivre l'émission Leader. Je vous souhaite de passer une bonne journée, bon appétit, bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez jamais, visez la lune. Salut à tous, joyeux Noël et à la semaine prochaine. punch,